ay ci mbokk yeeg xarit yi teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am dellu si waa ci altine jile ci l'émission des émissions comme niñ ko baaxoo di defee rek ñu ciy fas yéene ànd ak alaaji Sanjoogu Meng ñu jël rek lenn li nga xamante ne nii rek mi ngi ci penc mi di ay waxu homme politique ak ñi nga xamante ne nii rek ñoom ñooy eh, nit yi nga xam ne nii daañuy yëngatu ci wàllu média eh, tey jii nag ci altine ji ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñaanal leen jàmm noonu ñaari gaa benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm di ko ñaanal itam sunu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir kër gi te koy ñaanal mboolem xalifi ci biir réew mi yëpp sénégalais yi nekk ci biir réew mekk bitim réew ñu ngi leen di bàyyi xel ñoom itam ndaxte say su nekk rek ñoom ñoo ñuy wéy di ñu topp noonu laa lay joxe eh, ki nga xamante ne nii rek moom laay fas yéene bokkal waxtaan wi bu jot muy jógu meng ma bàyyi ko mu nuyoo kentoonat yu ñuy suivre su ko defee rek ñu daal di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 di nuyu bu baax kilifa diine yi ci biir réew mi ñu ngi nuyu El Hadj Modou Diouf Abdou ab Ablaye Diallo ñu ngi leen di nuyu macha allah ñu ngi nuyu son bu ca xulli bi. <laughs> sooy bu jëw <laughs> <laughs> ma nga ca xulli ba quoi sooy. Eh, sooy di leen nuyu di nuyu ñoom Umar Gueye ak ñëpp Ndaya. tout monde ñoom ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu. Mm. voilà mu ngi noonu non euh, alaaj nag sooy bu xoolam bi dafa am solo ndaxte parfois mu gis lu nga xam ne xaw na kii mu daal di wax Modou est-ce que doo ko defee nii du baax Omar tamit ci wet geeg ndeyaa ñi ngay nuyu ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen euh, ñaanal jàmm ju sax dàkk nuyuwaale itam le meilleur chroniqueur de tous les temps moom mi nga xam ne nii euh, moom moo ñuy teg choc rek ci bile émission di wax ne nag à tout moment nag mën na maa daanu mais grawul je Euh, Modou tey nag daañu waxtaanee ànd ak yéen ak kii di Pape Djibril Fall moom mi nga xamante ne nii rek député député la fële ci assemblée nationale keroog nag ci info matin dañ ko fa daal di invité mu yëkkati ay kàddu jëm itam. ci euh, président de la république tukku yi nga xamante ne ni mi ngi koy faral di def fële ci bitim réew di wax bay wax ci négociation yi nga xamante ne ni daañu koy faral di amal ak délégation yi nga xamante ne ñoom ñoo leen di faral di gunge ci yooyu lee euh, génn ci biir réew mi nee na nag exemple bi mu ci joxe rek mooy que ni en général dañuy faral di gis ñi nga xam ne ni ñoo di yooyu délégation délégations ña ci digg anglais euh, tuuti nit lay doon mën na doon benn wala ñaar su ñu demee nag fu ci mel ni fële ci États-Unis dañ fay faral di gis nag ci boo xamante ne nii bu mag a mag la donc euh, nee nañ daal loolu il faut ñu xoolaat ko bu baax a baax daañ ci ñëw ci kanam tuuti digtal leen kàddu yi nga xamante ne nii yëkkati na ko foofu loonu nga xamante ni moo di ca TFM Amadou Ba député bu PASTEF moom it ma nga woon fële ca jàkkaarloo ñëwaat itam ci DPG bi nga xamante ne ni waa assemblée nationale jàpp nañ ni le onze bi lañ ko war a def ñoom ñi nga xamante ni nii nag ñoo faree ci beneen côté bi ñu jàpp ne le 13 moom mooy date bu baax bi ndax nee na mënuñu tànn bés bu nga xamante ni nii ci la conseil de ministres di am ñu bëgg ko jël mu coïncider ak jour DPG bi dañ ci ñëw léegi léegi incha allah ci ni mu gën a yaatoo ñu jeexale ko ak abano stress mi nekk fële ca TFM um, ci émission bi. nga ne nii day nakay fay faral di def muy Abba No Stress moom nag daal dina fay euh, wax soxlaam jëm nag ci ki nga xamante ne nii moo di doxalinu Pape Cheikh Diallo ci boobule entreprise nee na nag lu fa xew lu nekk rek. Euh, Pape Cheikh da ciy dugal loxoom wax itam ci problème yi nga xamante ne ni Sida Thioune dan na koy am ca boobule kër léegi léegi lay doon dañ koy daal di dooree ak Pape Djibril Fall député moom nag kàddu yu mu yëkkati jëm nag ci délégation bi nga xamante ne ni ñooy faral di gunge suñu njiitu réew yi ñuy dem ca bitim réew ñu déglu ko te dellu si. dossier aussi euh, ni couché ni à genoux mais à mémoire égale te loolu dafa nekk défi yu mag yoo xamante ni Afrique daf ko am tey am. ñoo xamante ni du point de vue de la négociation dañuy irréprochable waxtaan naa ak benn professeur bu nekk ENAM euh, mu ne ma moom il a participé à des négociations sous Abdou mu ne ma mais dangay dem négociation jóge Sénégal dem États-Unis seen délégation bi jóge Sénégal juróomi nit lay doon mm. soo moytuwul kenn na ciy wax anglais ñaa yeneen ñe ñett ñi wala ñaar ñi présence non justifiée nee na nga dem dugg ci salle boo xamante ni da ngay jàkkaarloog cinquante américains yu toog et chacun a une présence qui se justifie. Ouais. Mm. Chacun a une valeur ajoutée kenn toogu fa ndax yaa ma neex. Mm. donc et du point de vue de la négociation déséquilibre boobu rek waxuma ci nombre bi. Mm. ci compétence yi ci expertise bi dafay wane fi nga xamante ni foofu la mbiri jëm je pense que enjeu bi ñu am. bokk na ci encore une fois l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ba nga xamante du point de vue de la négociation dinañ mën a négocier bu baax a baax a baax mi ngi noonu kàddu yooyu la yëkkati moom euh, Djibril Fall alaaji nee na nag dafay mel ni euh, ñun daal suñu njiitu réew yi euh, ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di àndal dafa mel ni dafa xeep li nga xamante ne nii moom la ñuy doxalee dem na ba tudd sax nee na yenn présence yi nga xam ne dañ koy faral di gis non justifié la te en général ñi ñuy dajeel foofu noonu dañu am expérience ci li nga xamante ne nii dañ koy def te ñoo leen gën a xam li nga xamante ni moom la ñuy faral di waxtaanee ci boobu boobule génn. waaw mais <clears throat> xam nga boo seetee moom dafa waroon a tàccu ah. Ah, waaw parce que eh, ñi daan dajale mbaboor mi eh, ñi dajalewuñ wuñ mbaboor ñi ñi fa dem ñëpp boo gisee ki nga xam ne mooy président Diomaye dem na am na secteur yu bari yoo xamante ni bii eh, waxtaanee nañ ko ko signé nañ ay kii ak ñi nga xam ne ñooy chinois yi du dëkk mm-hmm. Euh, donc gis nga bu baax ci mbir yi ñoo xamante ni bii ñëpp euh, ñu yor ay mbir fii ci biir réew gis nga fi sëriñ bupp gis nga ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni bii ku ci nekk mën nañu justifier lan moo tax ñu dem kooku liñ ko doon wax kii da koo jëmmal donc dafa waroon a tàccu xam ne liñ ko waxoon démb kii def na ko tey hmm. du dëkk donc pour man tàccu moo ci war a am quoi maanaam xam nga parrain saay opposition moom parrain saay nit ñi dañuy opposé rek pour opposé maanaam du ñu xam ni pareen saa yi euh, nga tàccu nit ki lu lay yëkkati la souvent nga nit def loo xamante ni bi da ngay taxaw nga ne ah lii de baax na maanaam luy yëkkati ab opposant la ko ci loo xamante ni bi jàpp nga ne lu baax la bu fekkente bi nit ki def na ko comprendre su fekkente ni bi euh, def na safaan ba bu boobaa boo koy wax day safe parce que dañuy wax ne ah waaw wax dëgg fa yàlla kii de bu baaxee mu wax waaye bu bonee it mu wax du dëkk. Mm-hmm. mais bu fekkente ni bi yow même bu baaxee nga ne mënoon naa mënoon naa ñëpp xam nañ ni mënoon na waylaa mu baax nga gis ni ba yëf yi baax na defee nañ ko comme ni ñu ko waxee nga dellu ginnaaw di expliquer leneen loo xamante ni bi keneen la ko waxoon. ne la bu ñëwee ñay ñëw dañuy dégg anglais fii nag ñu soxla ñu dégg chinois lañ soxla woon parce que fii Chine la. non exemple la joxe waaw exemple la joxe. <laughs> daf ne ñu dégg anglais. Ah. mais fii ay chinois lañ soxla ñu dégg chinois c'est que pour te dama la bëgg a wax foofu ne mm. euh, nekkul ni làkk yi ñu dégg làkk ba ak ñu bañ koo dégg buñ ko déggul it am nañ ñoo xamante ni. ñooy traduire sax danañ traduire quoi dinañ xam li ñuy wax. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Euh, jonaay bu demoon ba yegg di làkk séeréer sax danañ wut ku ku wax pisin cin <laughs> euh, kii li muy wax ci séeréer comprendre nga parce que àddina bi toll na foofu quoi hmm. am na yu bari yoo xamante ne bi tey nit ñi ñu ngi communiquer communication boo xamante ne bi communication boo boobu bu am solo la en tout cas daal man li may wax opposition bi nga xamante ne bi tey hmm, hmm, bu ñu bëggee di opposé woo comme nañ daan opposé woo dañuy passer à côté c'est que il faut que ñoom opposition bi ñu dellu siwaat seen xel daal de xam ni façon opposition boobu jeex na gis nga ni ñu waxee ne système bi fi nekkoon jeex na mm-hmm. noonu la façon opposition boobu tamit jeexee mm-hmm. waaw donc loolu il faut que ñoom aussi tamit ñu ñu bàyyi ci xel. mais moom dafa mel ni ba léegi nii nangoogul parce que nee na. dafay nemmeeku déséquilibre. nee na ah. itam enjeu yi mooy euh, euh, euh, nit yi nga xamante ne ni ñoom méngook ñi ñi fay teg dafa mel ni nangoogul ni ñoom mate nañ ko. waa mais xam nga ñoom jàpp ñu ni sax président bi mate na président mu suñu ko jàpp xam nga ñoom pareen saa yi dafa am loo xam ne moom lañ doon jàppee président quoi xam nga ñoom bu ñu doon xool bu ñuy xool nit ki. ni ñuy xoolee nit xam nga Sénégal euh, dañuy juger nit ci melo maanaam moo tax ñuy neex a nax waaw maanaam duñ la duñu xool yow yaay kan déglu la nga wax mm-hmm. duñu xool say idée Sénégal dañ lay juger par sa melokaan sa solu sa kii sa loolu la plupart noonu la ñuy juger nit maam Cheikh Ibrahima Fall defoon na ci benn kii bu kéemaane mooy ba mu demee ca kër ga di yelwaan ñoo di am nu mu ñëwee sol yére yi kii maanaam euh, joxuñu ko cër. Mm-hmm. mu ñëw beneen yoon sol mbasin bu rafet ñu jox ko cër. Mm-hmm. lañ koy jox bañ ko koy jox mu koy def ci yére yi. Mm-hmm. pour wan leen ne leen du jëmm ji ngeen teral mais li ngeen teral mooy yére yi waaw loolu mooy problème mu sénégalais yi yu bari nekkoon na problème mais defe naa ni avec l'arrivée de président Diomaye ci nguur gi. am na lu bari loo xamante ni bii tey dàq nañ ko sénégalais yu bari dàq nañ ko nañ jàpp ni plus de 54 pour cent sénégalais yi nga xam ne ñoo voté football nañ loolu waaw parce que xool nañ ko doy na leen ginnaaw bi nga xam ni président parce que Ousmane ko bi mu ñuy présenté daf ñu présenté nit ku jub te dëggu comprendre loolu la moom la présenté sénégalais yi loolu rek dafa doy parce que yi dañu tolloon foo xam ne loolu rek lañ soxla nit ku jub te dëggu loolu rek la ñu soxla mm-hmm. waaw loolu nag ma nga ca. ma nga ca loolu mooy l'essentiel. <laughs> mi ngi noonu jërëjëf euh, Alaaji euh, kii nag di Amadou baa bu PASTEF nekk député fële ci assemblée nationale ci jàkkaarloo ña ngay werante ba tey jëm nag ci date bi nga xamante ni nii dañu jàpp ni premier ministre bi di Ousmane Sonko dafa war a ñëw euh, def lii di DPG bi moom nag nee na le bi moom mooy date bu baax bi nee na itam bu fekkee ni sax dañu nar a tas boobule assemblée nationale. jour le 11 dafay coïncider ak mercredi bu nga xam ne ni conseil des ministres dafay faral di am nañu dem teewlu ko te si moom ngeen ni ginnaaw président amul benn ponk bu koy wax ci règlement intérieur ni dans la constitution. liiral article cinquante cinq ak quatre vingt dix sept nga wax ma c'est vide juridique. c'est vide juridique. amul xam xam nga dafa premier ministre. day nekk à l'étranger. daa am xam ni dafa am conseil des ministres comme le mercredi. calendrier agenda wu premier ministre kan moo ko yore c' est le président wala assemblée. lan moo tax dénkuñu loolu assemblée parce que assemblée contrôlé wul l' agenda du premier ministre c' est le président qui décide li muy def woo ministre am yeeg ñëpp ni leen tel jour dem leen donc tel jour bu kenn génn réew mi bu kenn am activité. jour bu conseil des ministres ngeen ni da ngeen ciy fixé date mais ce qui est grave mooy constitution depuis l' indépendance DPG yëpp c' est le président de la république moo koy fixé yéen ngeen ñëw ni il y une délégation tacite parce que comme que président waxul on conçoit que dañoo bàyyi ñun assemblée ñu fixer ko date mani la ci droit la délégation dañu ni y pas de délégation sans texte il n'y a pas de délégation au-delà des textes c'est un principe universel de droit qui plus est pouvoir au président de la république ngeen ni y a un vide gis nga vide bu amee constitution da koy prévoir article 75 dafa ni président am na juróom-ñetti fan pour promulguer loi su ko deful na ko président assemblée wuutu moo tax ma ne ne wuutu buy am ci président texte moo koy génne yéen ngeen dem usurper une fonction du président de la république la preuve lu tax bi mu bindee yónnee leen décret bu bees résisté wu leen gis nga nii ngeen jàppee réew moo doy waar. n'a jamais été question de résistance à oui parce que mënu leen ko. non xoolal mooy ngeen utilisé dans l'illégalité n'a jamais été question de résistance yow waa léegi nit ki nit ki mu ngi dund. waaw xaaral nit ki mu ngi dund. deewul mhm. feebarul. su mhm. soo jàppee ni bindul dat doo ko woo ni ko sëriñ bi mbaa fàtte woo date bi. xanaa duñ ko yëgal mais nga ni yow yaay décider jour conseil des ministres nga ni président premier ministre bul conseil des ministres am ñëwal assemblée ñu convoqué la. li ngeen di def c'est grave. Hmm. faux usage de faux yi bëri na. et je pense que seen conférence de président boobu DPG dina mi ngi noonu kàddu yooyu la yëkkati alaaji mu ngi dem bay wax ne sax dat bi nga xamante ni waa benn bokk yaakaar dañ ci gar seen bakkan am na leneen lu ci lalu lu ñu waxul ndax euh, ñoom daal euh, pour ñoom daal balaa même buñ ni dee tas assemblée bi sax il faut mu ñëw jàkkaarloog ñoom. waaw xam de euh, boo seetee léeg-léeg nga du dóor xale. Hmm. mu rëcc. xale ba nga dóor dóor ba dalut xam nga ab saaga nga koy mottalee daanaka. waaw comprendre nga. fi mu toll nii looloo leen dal. ñoom waa benn. waaw ñoom c'est seen problème mooy xam nañ ni jeex na ñàkk nañ daanaka yëf yi. Hmm. waaye même bu fekkente ni bii nañ am sonko rek wax ko wax ju ñaaw loolu dong lañ soxla fi mu toll nii. fi mu toll loolu képp lañ soxla nañ ko wax wax ju ñaaw bu ko defee wàccaale ko. seen xol féexaale dama demee ko retraite. waaw seen xol féexaale. loolu bu amut. waaw. Eh, yu bari dana am. ñoom fi mu toll loolu mooy féexal seen xol. voilà jàkkaarloog Sonko jeex na cardiaque. di waaw xam nga ñoom li leen dal dafa metti parce que bennoon ndeysaan dafa nekk kii boo xam ni li leen dal il faut mu metti aussi tamit. Hmm. waaw parce que li leen dal. mooy ñoom euh, dañu jàppoon ni lii ñu ne du jeex waaw te mu jeex nag xam nga liy jeex bett la sax bett la sax bett la jeex noonu. Mm-hmm. mais ngay xool yëf yi di jeex. xanaa xam nga condamné à mort yi looloo leen sonal. waaw bu ñu la condamné à mort nii. dangay jaaxle kañ la war a doon parce mm-hmm. muy ñëw. ñu jàpp date ñu fixé la date. Mm-hmm. nga xam ni mi ngi ñëw problème la ñu mm-hmm. la nit ñi di xoolee sa comportement parce que ñoom fi mu doon ñi ngi jëm vers doon ay chômeurs yu mag lañ nar a doon ci kanam léegi nag moom la ñuy gis nii élection day amaan nag kon ñii duñ ñëwaat assemblée ñoom xam nañ ko mm-hmm. xam nañu duñ ñëwaat du ñu ñëwaat assemblée. Ah, bi ñu demee ànd jeeg Amadou Ba mi ñu ne. moom fi mu toll nii mi ngi wàcc nag. <laughs> Amadou Ba duñ ñëwaat. Hmm. ñii duñ ñëwaat quand même parce que ñii dañoo sonal dañoo sonal dañoo sonal askan wi quoi. dañoo sonal askan wi te nii ñu doxalee dafa dafa gën a ñaaw parce que mënoon nañoo gën a muus tuuti quoi muus ni nga xamante ni bi noonu lañ doxalee ni mais dese nañoo yeewu jiital ab Abdou Mbow muy fallax fallax yi. ñu defee ne ñoo rey gaynde gi loolu mooy li nga xamante ni mooy seen erreur. mais alaaj seen rôle la léegi li nga xamante ni moom la expliqué jëm ci wàllu ñoom ñu taxaw maanaam xam nga nag dañoo tàmm forcine quoi maanaam ñoom tàmm lu dul seen cër ñu di ko teg mu doon seen cër quoi maanaam yooyu lañ tàmm xamuñ ñi nag dafa am yoo xam ne bi nekkatut ci seen loxo moo tax ni ñuy fonctionner nii rek lañ daan fonctionner moo tax li leen Amadou Ba wax dëgg la parce que nii ñuy doxalee. dañu ko tàmm dañoo tàmm rythme bi rythme bi nga xamante ne bi moom la ñuy doxalee nii ba lu dul seen cër sax ñu bëgg koo jël cëroo ko naan premier ministre ñëwal jour tel Sénégal ngay gis ñu ne la 4 plus 8 ñu ne 11 Sénégal la quoi assemblée Sénégal 4 plus 8 ñu ne onze la. te 12 la. ah mais moo tax ma ne booy yi bu ñu leen di seetaan mën nañoo former ay nilaar ñu ne la 11. lépp Ousmane Sonko di ñëw. en plus muy muy coïncider ak jour bi nga xamante ne nii ci la ñuy faral di amal conseil des ministres yi loolu tamit est-ce que dina mën a nekk. mën nga dem fee bëgg a dem fee wala ñoom ñooy puus ñii ñëw wala nu mu nar a demee. xanaa premier ministre doon ñaari jëm teew fii teew fee. <laughs> te loolu mënut a ne nag. alaaji bu ko defee di wax ak ñi di wax ak ñee. waaw loolu lañ bëgg de. Hmm. comprendre nga. Hmm. maanaam c'est que dañuy def li ñuy def dem nañ ba mujj gi àndatuñ ci ak li nga xamante ni mooy xel quoi. parce que par exemple am na yenn yoo xamante ne bi sax mën nga ko def mais nga ànd ci ak xel comprendre man jàpp naa ni député yi ni ñu terminé nii image bi ñuy bàyyi baaxul. et pourtant ñoom dañu jàpp ne alaaji ci lu ci lu ci lu normal la ñu nekk. waaw xanaa xamoon euh, wu ñu. Mhm. ñoom ñoom li ñuy def lu yoon la lu mhm. ah, pour moom ci lu normal la ne <laughs> ki ko koy tere moo nekkut ci lu normal. da toog sax dila la expliquer bien fait wu yàmbaa. naan la boo ko defee nii nii nii gars yi xamuñu fi mu toll ñun ñëpp ay bopp neen lañ ñu jàppee bu fekkee dem doo tux yàlla dañ naan waa ji bopp neen la. te ñu xam li nekk ci yàmba lu muy def mooy kiy tux cigarette rek. bu mm-hmm. jëndee pake bi day gis ni. lii liñ ci bind ñun yëpp du gis na ko. waaw te teewul ñoom ñu ngi koy jënd ko ci ah, déggoo li la sëñ Cheikh te laaj mu ni la xam naa lu muy lii. sëñ Cheikh nee na am na koo xam ni la mu bind ñaawteef yi mu bind ci sàngara boo ko liiree dootoo sax bëgg a digg sàngara nee na waaye li ko ci jaaxal mooy balaa mu ko def moom balaa muy bind livre ba daan naan sàngara ba ne tab ci soo ko bind livre <laughs> doy na ñii looloo leen dal loolu moo leen dal maanaam seen ñàkk yekk ci yoon gi képp ku leen ci fekkut pour ñëw yow yaa nekkut ci yoon mm-hmm. loolu la da ngay dem ba mujj gi dañuy jàpp non pour ñun ñun ñoo nekkut ci logique jaaratuñu ci yoon ñoom ñoo nekk ci li nga xam ni moom mooy yoon mm-hmm. waaw mm-hmm. parce que fukki at ak ñaar dañ cee dox nag waaw xam nga nit moom lu mu yàgg rek mm-hmm. day dem ba defee ne dëgg la waaw loolu mooy li nga xam ni mooy problème waaw euh, te xamuñu ne nag lu dul jeex lu nekk rek yàlla suñ moom sàkk ko. Mm. Euh, d'ici le 12 nag daañu xam mbiri fan lay euh, mujj yàlla nañ fi yàlla bàyyi. ba booba ñun ñëpp ñu fekkee kenn bañ a wuute. ñu jeexalee ak Abba no stress moom nag kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci Pape Cheikh Diallo du ñu def rek lu dul dem déglu ko ko defee yàlla ji ñëw indi si xalaatam. balaa may jël benn téléspectateur woote leen gaaw maa ngi leen xaar Pape Cheikh. man Pape Cheikh mi ci kër gi Diallo Diallo mu gàtt mu ñuul mi seytaane Pape Cheikh mi dee woon kuy jàpp seytaane jàppal Pape Cheikh xam naa Pape Cheikh fi mu toll ci kër gi dëgg xam naa dayoo Pape Cheikh mm-hmm. balaa may ñëw laaj nañ ko dañoo bëgg abaa ndax mën naa ñëw mm-hmm. lam ci wax lépp ma dégg ko ma rafetlu ko nag lool waaw waaw ah, li mu wax lépp ma rafetlu ko loolu da yokk jom bi ma ñëwee balaa may commencé benn émission kilifa toog na Pape Cheikh toog ma toog ñu laaj ko noo gisee abaa ak loo bëgg ci abaa mu wax ma li mu bëgg dafa ma dina jàpp ma ma xam ni kon kii am na lu mu doon ci kër gi mhm. ma jox ko loolu moo ko moom mhm. Youssou Ndour day waaj a joué mu woo ma ne ma suba damay ñëw ci Youssou Ndour bi ndax da jënd yére ba noppi ma ne ko déedéet mu ne ma booy jënd jëndaaleel ma ah te joxuma xaalis joxuma dërëm li muy fayeeku fayeeku ma ko li mu yor aw ma ko dëgg la ñu dem ba France ma génn snap fi ma dem mu ne ma booy ñëw mbuus mi nga indaale indaaleel meneen mu toll noonu li nekk ci mbuus moom la nekk ci mbuus mi bugguma am ak yow problème. ma ñëw indil ko parce que xam naa li mu doon ci kër gi. Hmm. Pape Cheikh. li mu bëgg ci kër gi day am ci kër gi. dëgg lu mu fi bëgg lu fi am parce que am na doole boobu ci kër gi. kon bu ma nee Pape Cheikh Diallo seytaane la kenn du ko bañ. war naa mën may may ma yeggali. war naa mën a Sidaat Thioune Sidaat Thioune émission bi may def man à la rajo. s ay super euh, criminalité. émission bi may def à la rajo. Sidaat moo ko njëkk a def ci kër gi. dëgg daal dëgg la DJ su ñëw ñu yóbbu Sidaat 14h. Hmm? DJ Nicolas ñëw ñu yóbbu Sidaat 18h. dëgg la dëgg la. DJ Plos ñëw ñu yóbbu Sidaat 2h du loolu xanaa mooy animé ñi nelaw. Sidaat bu meree buur war naa mel war a warul mel sa diggante yàlla. bu fekkee nit charia rek la ñuy wax. <laughs> Eh, la ñu ne woon. wallaahu l-haqq. wal haqqu llaah. waaw. ayca mi ngi noonu Rabat No Stress moom ngeen doon déglu léegi ci kaddu gi alaaji nag mu mel ni lii daf may rappeler rek temps yi ñu nekkee primaire da nga daan gis ki gën jool ci classe bi gën ñu ci ëpp moo doon ñu doon noggatu di nangu suñu mboo yi ak suñu suñu suñu suñu gute yi euh, Abba daal dafa mel ni loolu l'expliquer parce que nee na su doon génn daf koy wax indaaleel ma lii li nga yoo indil ma ko en plus wax na doole ji nga xam ne ni moom Pape Cheikh Diallo euh, am na ko ci biir groupe bi euh, balaa ñuy ñëw ci Sidat Thioune li ko li ko fa dal non mais xam nga boo dégloo wax ji. Mhm. wax ji. Euh, du Pape Cheikh ko moom Sidaat moom wax ci ah mais dafa làqatu ci Pape Cheikh pour wax ak Sidaat. ah loolu nu mu mën a nekkee tamit. waaw mooy li nga gis moo tax yow fi mu doon la yaa ngi présenté élément bi yaa ngi wax ne Sidaat li mu wax li mu wax Pape Cheikh nii naag na le yow ci angle boobu nga gis mais angle boobu taxu koo jóg. dafa hmm. bëgg a xam Sidaat dafa génn génnaat. ñaari sorties yoo xamante ne bi da koo amal jëmale ko ci TFM. lii nag wax jooju la bëgg néewal maanaam li si daat wax euh, lay bëgg a wàññi doole ji. Hmm. daal wane ni wax la joo xam ni daf ko wax c'est parce que dafa mer li tax mu mer lii la. ne la dafa doon anime dëggantaan buub su ñëw ñu dindi ko yóbbu ko 14h. ko 14h ñu génne ko. 14h yóbbu ko 18h yóbbu ko 18h di cloche ñëw ñu dindi ko yóbbu ko. 2h du matin 2h du ku lay déglu. ne kenn du ko déglu xanaa ñan lay animel léegi dafa bëgg a wax nit ñi ne leen Sidaat mi wax ne dafa gëm euh, Jomaay ak Sonko du loolu dafa mer rek dañ ko puus. dem na sax ba ci biir wax ji wax na sax lu jëm ci wàllu sponsor ak affaire yooyu pour wane ni émission Sidath amut sponsor xam mbirum sponsor Sénégal. alaaji yow. xam nga mbirum sponsor <laughs> du ajuwut ci mën. walla wala ñu suivre la. Hmm. dafay aju. ton léeg hmm, hmm. ci xaritoo. nga am ay xarit am ñooy seeti am ñooy kii ñu sponsorisé grand jàppal ci émission bi mu jàpp ci émission bi. ajootut ci talent ak tamit euh, kii ay ak ay audimat ak lu ni mel bu njëkk ba ci loolu la aju woon aju woon na ci loolu tool nañu fi benn période boo xam ne Walfadjri gii nekk p ci te ci ci rajo yëpp nekk p yaa ngi dégg. waaw. RFM ëpp ko junni yoon ay publicité benn publicité ñëwut Walfadjri loolu laal na bu fekkoon ne ñuy annoncé dañuy choisir rek public xanaa kay ki ñu wax ne leen ñii ñoo jël P. Hmm. jamono yooyu sondage normal la xanaa kon foofu la ñu war a cibler mais ñooy gën a tuutile ay publicité waaw kon. léegi wax Pape Cheikh naan ko seytaane laa. non non loolu moom ci la làqatu loolu dafay yëkkati Pape Cheikh dafa loon Pape Cheikh fi mu toll loolu Pape Cheikh da kontaan parce que yëkkati na ko wane na ni kiiwam la. te ku taxaw di la wax bu soxor non non du kii bu soxor kii bu lool la kii bu kii bu loolu la quoi xam nga yow yaa gisee angle bële mais Pape liir na entre les lignes comprendre na ni euh, li ko abaa defal lu rëy la comprendre na ko. Eh, waaw wane na ni yëg na gëdd gi maam wane na loolu quoi mais nag après kële la jéem pour jéem a neewal euh, neewal kiiwam loolu nag baaxul hmm. waaw parce que loolu boo gisee loolu du naqari naqariwut kenn ci waa TFM parce que bu fekkonte ni bii tey am na neneen noo xamante ni bii waxee woon na ko défendre position Sidaat ñu sanctionné ko moom mais lii. dafa nag baaje li nga xamante ni bii mooy kiiwu kiiwu Sidaat yi. mais mais alaaji est-ce que itam moom it waxaale wu ci soxlaam parce que soo demee ba toog ne. Ah, jour day bés day jot sax. Ah. mu war a def émission dara desul lu dul taal otom ñëw Pape woo ko ne ko toogal sa kër. waaw bul ñëw. waaw loolu yëpp mën na ko ci ñàmbaasaale waaye loolu du but bi parce que li ëpp solo mooy lële mooy li ëpp solo parce que par exemple Euh, xam nga boo seetee sorti Sida yi dafa déranger TFM sorti yi nga xam ne moom la def. Mhm. dama def ay sorti yoo xamante ni bii sorti yu ay pic yu dal la quoi. Mhm. comprendre nga. Mhm. parce que boo seetee bi mu njëkkee wax Alaaji Assane dañ ko sanctionné mu waxaat ñu sanctionné waat ko comprendre nga yëpp dafa ànd ak ay sanction donc sorti yi muy sorti neexu leen mais nag en tant que collègue. bon aba mm, wa mm, mu ko jéem a dugal ci affaire humour yi nii pour man bon waru ko def quoi. waru ko def pour man erreur la pour mu def lu ni mel. parce que gis nga gars yi ay businessman lañ waruñoo fexe euh, yéen en tant que ay collègues euh, ngay di wax yenn wax yi quoi. parce que warta demee noonu parce que mi ngi mel ni kuy défendre daat fekk mi ngi koy nappaaje. waaw ku amul dégg-dégg bu ah, xóot yow doo comprendre loolu koy nappaaje parce que ko hmm. koy nappaaje mais nag dafa mel ni ku taxaw ne da koy protéger mais boo dégloo li muy wax yëpp mooy saay ba mu meree du tey lii muy wax nii yëpp ba pare bi muy wax yëpp mi ngi reetaan ah. di di di mel ni ah. kuy kokkali waaw yooyu la donc euh, te loolu euh, jarut mu di ko def parce que gis nga ñi ay kii lañ ay businessman lañ tey jii sa émission beneen booy bu fëllee dox tuuti rek mm-hmm. ñu mel ni mosoo nekk ni yow yaay yóbbuwoon fii kii parce que bul fàtte ni sama waa ji fu mu fa toll Kouthia. Kouthia waaw Kouthia yanu na kiiw TFM bi fu ne avant TFM di doon. Mhm. Euh, télé. Mhm. xeex ci di def émission di ci xeex. Mhm. pour TFM doon télé bi mu doonee télé mu dem jaay carte yi. bul fàtte ni jamono yooyu dañ daan jaay kart pour nga am ko Kouthia da daan wër Europe di jaay ji ay carte pour nit ñi di seetaan TFM. Hmm? Mm-hmm. mais biñ demee ba sentir ni mm-hmm. anam donc loolu doo ko gis nag en tant que yow nga nekk jeune di liggéey peut-être tey say mbir mi ngi dox nga bëgg a defee ne gars yi duñu mbokk duñu xaritam ah. mm. waaw ah il faut faire très attention moytu donc li mu def nii du du lu gën daal non non baaxul Sidaat yàgg na ànd ak gars yi bokk naa ak ñoom gis-gis donc mi ngi ci li nga xamante ni bi moom la ne wane na féeteem wane ni patriote la bu amee ay gis-gisam am na sañ-sañu taal téléphone am wax li nga xam ni moom la gis ci yëf yi du dëkk léegi nag yéen ñi nga xam ne ay woote ne président dafa war a nekk démocrate dafa war a nekk lii ñooñu ñoo war a tamit am démocratie ci seen média yi comprendre mhm. waaye saa yu ñu xëyee nekk ci nguur gi ba ngoon jot waaye ñun ku ñu laal ñu sanctionné la donc ñi ko leen joxoon réew àddina tukki. àddina tukki voilà ñuy sanctionné ñu bari te ah, kon nag na nga dégg bu baax a baax waxu saa njuubu yi ndaxte am na solo am na yéen yoo xam ne wóoloon na bu sax ah, di ci dugg ah, vraiment mu nekk lu doy waar daal kon nag alaaji ñu bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi nga xam ne ñoo ñuy suivre. daa ñuy joxante di daje beneen altine ci kàttanu borom incha allahu rabbi jërëjëf euh, Mbengue mi ngi noonu ñu jaajëfal képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon euh, bàyyi xel ci solution euh, TV di gërëm bu baax a baax Alaaji Modou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo Serigne Fallou Gumbala ak képp ko rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mekk ci biti réew jox leen di daje beneen altine ci l'émission des émissions